d'urgence lañ daal di amal gannaaw buñ nekkee di jànkoonteel ay jafe-jafe jëm ci seen entreprise de presse yi. bu ñu jëkki-jëkkee impot di ñu yónnee ay notification de crédit alors que bor boobu effacé woon nañ ko ba pare yemul foofu muy tëj compte bancaire entreprise de presse yi ñenn ñi sax seen compte yi moom la ñu jëkk a tëj dégg te loolu yëpp si diir bu gàtt en 15 jours. dégg nga loolu vraiment ñu yaakaar ne indi fitna boobu ci secteur la presse dafay doy waar. li ñu war a fay toll ci 40 milliards de francs CFA wante ba tey suñu sukkandikoo ci ñoom ñile xaalis bi gën naa yées loolu. 40 milliards yooyu comme ni ko kenn waxee sànq euh, ce sont les entreprises et publiques et privées et même entreprises publiques yi ñoo si ëpp wàll mais tey aux yeux des sénégalais ñu ngi ñuy jaay. Eh, di yàq suñu der ne yéen da ngeen amel 40 milliards 40 yooyu lu si ëpp les 60 pour cent ce sont les redevances euh, dues euh, par les télé et les radios à l'ARTP jamono jii seen taxawaay dafa daal di leer naam sax bañu ñu waxtaan ak njiit yi wante rek buñ sañoon kont yi ñu daal di koy débloqué waat. am na ay propositions yu bare yu nga xam ne dinañ ko def pour état du Sénégal pour que ñu am benn presse. bu nga xam ne presse libre et indépendante et une presse qui soit viable économiquement une presse qui va sortir de nos frontières nationales et aller à la conquête du monde. métier tasub xibaar doon lu ama am solo ci réew. loole nag war na mën a tax ba képp kuy.